ñëpp xam nañu ne ay règlement de compte moo tax procureur di utiliser pouvoir boobu sur instruction de sa tutelle léegi tey jii dañu war a maintenir encore au moins un mois Bamba Fall jusqu'à cour suprême joxe àtteem waaye nag ci diggante bi dafa am leneen lu ci am ci diggante bi Bamba Fall am ay crise prison ndax état de santé am mi ngi commencé dégradé ca njëlbéel ga waxoon nañu juge d'instruction bi ne ko Bamba fàll dafa jabet jabet gu métti te foo ko fekk même moment bi ñu koy wax mi ngi toog ci poosam mu yor ay garabam waaye fulaalu ñi te yàlla àtte nañu ñu toog ba muy am ay crise prison ñuy daw di ko yóbbu hôpital principal waroon nañ ko bañ a yóbbu ñoom ñu jàpp ñoom ñu jàpp ne place prison la waroon nañ ko bañ a yóbbu lu tax ñu daw yóbbu ko hôpital principal kon bu kenn naan ñu naan affaire santé Bamba Fall affaire tappale la ñoom ñoo daw yóbbu ko prison ñoom ñoo daw yóbbu ko du avocat du kenn ñoo daw yóbbu ko hôpital kon tey amul lu ñuy laam-laamee que ne Bamba Fall am na problème mu santé <laughs> si sinon duñ daw yóbbu ko hôpital principal ba pare gis ba ñu demee hôpital principal nit ñi commencé leen song foofu mais naturellement foofu aussi militaires yi nanguwuñ camal cambal am fa mais ñu gaaw delloo siwaat ko prison ay so ay soins pareeguloon même bouteille perfusion yu mujj yi ñu ngi ko ko solalee prison mais loolu nag jàmm la jàmm la ci tuuma yoo xamante ni wax dëgg yàlla ka ko def mi ngi fii sant yàlla bay bëgg a dee yor ay cinq 500 millions fonds d'avance di def lu ko neex di nga di di galayaabe te nee na dañ ko doon tenté assassiné léegi on laisse un maire boo xamante ne ni ñëpp xam ne njëriñ bi mu amaloon population bi. en prison malgré que état de santé di dégradé wu noonu ñu ne nag léegi état du Sénégal léegi waaw yéen wax leen ñu donc ndax yéen kii da ngeen ko bëgg a xañ liberté rek wala léegi ndax est-ce que du santé ci boppam ngeen ko ko bëgg a xañ wala bëggu leen koo rey parce que nag question boobu jot na depuis le debut question de liberté lañ doon wax mais tey jii ñun bakkanam la ñuy wax ñun fu mu nekk nii ñun bakkanu Bamba Fall la ñuy wax waxatuñu liberté. parce que ku ko gisoon démb tey ku ko gisoon ba muy ñëw ci prison bi nga gis ko démb comme man di nga xam ne kii soppeeku na di nga xam ne kii état de santé mi ngi wàññeeku bu baax a baax te ragalatu ko wax nag parce que ñëpp xam nañ ne dafa jàmbaaroon trop moo tax ba mu fay door a ñëw bu ñuy wax waxu santé sax mu ne noo maître bu ñu wax ci yooxu yooyu nañ bàyyi noonu mais nag tey moom ci boppam mi ngi commencé jaaxle ci état de santé looloo tax. ñu ne nag jot na ñu fësal ko ba àdduna bi yëpp xam ko xam ne non seulement état du Sénégal dafa priver ce maire de liberté priver toute la population d'assistance la population de Médina d'assistance de son maire mais aujourd'hui dañu ko bëgg a xañ wér-gu-yaramam donc mën nañu jàpp ne dañ ko bëgg a rey te dañ ko wax nag ba ñëpp xam ko tey li état bi bëgg mooy faagaagal Bamba Fall parce que gis nañu ni état de santé mel mais malgré tout gëmm nañ ci continuer ko laisser en prison hmm? c'est ça parce que wax naa ko sànq waxoon naa ne Bamba fal diabète bi mu yor dafa sévère de sorte que dañ ko doon suivre depuis l'Italie depuis l'Italie lañ ko doon suivre son état de santé donc aujourd'hui buñ ko xañee loolu yëpp malgré tout ça veut dire que dañ ko bëgg a xañ bakkanam ñun nag du ñu fi nekk di nekk ay magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko la ñuy don danañ ko wax ba ñëpp xam ko ne lii mooy mbëbët bi te nag lii yëpp dara waralu ko lu dul politique dong politique dong moo ko lal léegi nag bu dee état Sénégal politique jaral na leen ko ñu faat bakkanu maire dans l'exercice de ses fonctions boobaa que l'état assume ses responsabilités